dalal nañ koo xamante ni sa rakk la. Pape Ndiaye nee na fu mu toll nii dafa waaru. moo tax problème am ma jaaxal. que passe ah. yaakaar moo am na jëkkër léegi. <laughs> moo tudd am naa jëkkër. am naa la tudd. <laughs> sa yaakaar tasul de. elle est célibataire ah son moo tudd léegi am naa jëkkër. <laughs> Pape Ndiaye waaw léegi yow laajatuma la dara ngir yàlla bul wax dimbali ma rek. kon loolu la tax absent bul bul kii non non kon sa xel dajee ne. kon. non bàyyi dama lay ñëw wéyal. sa xel dajee ne <laughs> sa xel dajee ne. sama xel la Pane la nga <laughs> bëgg lu neex yow la nga bëgg lu neex yow. yow lu neex yow boo gisee lu neex yow yow. <laughs> da jël de.